Ndiaye suñu dëkk la ñu ñëpp ndax ku ne Sénégal ne Fatick donc euh, ba tax na taxawaay bi ma fi taxaw tey neex euh, fierté la ci man quoi. waaw sama diggante ak yàgg na yàgg na lool yoo xamante ne lépp luñ fi xewle dama fiy teew bu ci këram ak feneen ak feneen yëpp dem ciy ñëw donc euh, buñ ma choisir ci guddi tey gi nii pour ma doon ci animateur. dama ciy sawar pour ñëw la jeunesse de Ndiandiaye Ndiaye li ma leen di ñaan mooy ñu attaché wu surtout ñu def euh, une union parce que c'est l'union ki fait la force ñu nekk derrière leader yi fi nekk ñu jàppale seen président Macky Sall ndax euh, ginnaaw yàlla moom la fi yàlla teg c'est du nouveau moi il ma la wax tout tantôt rek la découvrir là, en fait te maa ngi aussi de donc euh, je suis très satisfaite Moi je la wax tout à l'heure c'est très enrichissant comme euh, culture te nit ku baax la maa koy sant di ko gërëm parce que waa Njaanjaay yi defal na leen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëpp waaw Cheikh daal baax na baax na Ami Diawara ndeysaan a jawaa yi ñaama rek Ami Diawara ka jawaa yi ñaama rek day toog rek ñuy lekk waaw kon Ami Diawara baax na Cheikh Kanté baax na yal na leen yàlla may jam ñu wér berle waaw waa Njaajaay nag jaa ngeen jëf gàcc gaalama parce que li ngeen def moom c'est très normal et puis c'est bien parce que Cheikh Kanté remercier rek moom remercier nga nit bu baax jërëjëf. bu ñu demee ci jeunes yi moo fi mën ci quartier bi bu demee ci daam yi Cheikh moo fi mën ci koñ bi bu demee ci paa yi Cheikh moo fi mën ci paa ci quartier bi kenn mënu koo fay mos naay wax ak président Birama ma ne ko gis nga wirloo jigéen ñi dañoo autonome pourquoi ñun ñu autonome cinquante moo tax ñoo autonome xëy na alalam lay jël di ko dugal ci biir wirloo waaye yemul ci làmb kese ñun jigéen ñi dañ koy jëriñoo bu làmb bi paree xaalis boobu président da koy génn jox jigéen ñi jox góor ñi ñu ciy liggéeye bu déwee bu làmb ji waaj a tëggaat lu ñu am ñu delloo ko kon sekkante njaaraama yow